comme Sénégal seen house bi jigéen yaa fa bari dëgg la Sénégal soo jàngut sa yaa ngi laaka fii soo jàngut da jóg nga am fit takka sa bi am fit nga wane ne jigéen nga nga taxaw si affaire yi politique eh, ñu dee ñoo taxaw fii nii di yuus jigéen yi ñun dama wax ne loolu moo fi jeex